deme. Ngaka Blindé. asalaamaaleykum mbokki téléspectateur 2STV yi tey nag euh, bu ngeen gisee plateau bi xam ne plateau spécial la euh, comme ni ma ko tàmm di waxee rek euh, 2STV yi muy télé bi nga xamante ne wax dëgg yàlla c'est la télé qui pense à vous et vous incite à regarder la télé tey nag dañu fas yéene dalal ki nga xamante ne Sénégal kenn dootu ko présenté kenn dootu ko naatable kambagam la ñuy dëgmal ba tax nañu invité ko fii ci plateau spécial bi damay bàyyi Ngaaka Blindé mu nuyoo ko waa Sénégal Ngaaka maa ngi lay waaw salaamaaleykum Bijou maa ngi lay fay di fay téléspectateurs yi toog yëpp di seetaan 2STV yi ku ci nekk fi nga nekk maa ngi lay jox loxo di jaar ci sa tur di la nuyu di leen siyaar di leen màggal bu baax a baax. di leen wax nii ñu ngi excusé wu bu baax ci li nga xamante ni mooy retard bi mais xam naa ni que ngaaka balaa may bàyyi sama naataango yi nga xamante ne ñoom la ñu invité ci plateau bi parce que conception bi yow yaa ko def ma bëggoon xam exactement ngaaka bi leen def pourquoi. concept bi nga ñëwaat ci synopsis bi parce que yaa ko taamu tamit. waaw dëgg la comme comme ni nga ko waxee maa bëggoon plateau bi en fait demee nii parce que xam naa ni sénégalais yi namoon nañ ma man tamit namoon naa leen. ma dem ba toll foo xamante ni nekkuma Ngaaka Blindé bu kenn mais Ngaaka Blindé bu sénégalais yëpp laa de ce fait bi ma yàlla dafa lay jàmm ba ma génn ñu bëri. bëggoon nañ exclusivité bu Ngaaka Blindé pour xam nu xew nu mu dundee circonstances yi ban état d'esprit la am et bëgguma woon jox ko kenn en fait ñeneen ñi toog parce que ñëpp a ci xaj de ce bi ñu ma contacté pour plateau bi ma ni ni ma bëggee plateau bi am mooy bëgg naa ay ay ay journalistes comme animateur jóge ci TFM ñuy jóge 2STV ñuy jóge DTV ñuy jóge RTS ñi nekk les presses en ligne comme les presses écrites ñëpp ñu ñëw toog ñu waxtaan bëgg ku ci nekk mu ngi ci gis sa bopp loolu moo taxoon ma taamu ko nii. d'accord parce que tamit euh, wax dëgg yàlla ku ne xam na ni que yéen game bi am na en quelque sorte ni nga xamante ne moom ngeen di defee. Mm-hmm. parce que tey mënoon nga def aaru mbedd wala génération consciente du genre mais xam naa ni que Ngaaka Blindé Kambagam peut-être dafa bëgg a yaatal fexe indi peut-être beneen conception bu bees bu ñu ko xamulee. Mm-hmm. mais avant tout indi nga yow tamit tànn nga ñi nga xamante ne ñoom ñooy say propres consultants. Mm-hmm. ñu war fi ñëw tey sur le plateau. Euh, dama leen di bàyyi micro bi mu jàll ci ñoom le temps ngay ngay wax pourquoi choix bi aussi ci consultant yi nga xamante ne ñoom nga jël tey. ku ci mel ni Simon Kals ak ki nga xamante ne moom mooy euh, Baxaaw ah euh, Paco waroon na fi teew may tey wax na li nga xamante ne moom mooy absence am motif bi dañ ko koy baal ñu ngi bàyyi Simon mu nuyoo. waaw salaamaaleykum salaamaaleykum maa ngi di nuyu di nuyu ñu nekk ci plateau bi yëpp di nuyu Ngaaka di nuyu téléspectateurs yi. di kontaan ci nekk fii nii ak euh, tous ses journalistes waaw di kontaan rek kontaan gis ko quoi moom moom da koy da koy xool rek di ree quoi di bég <laughs> mais kàmbakam ñëwaat na euh, gis nga ngaaka Simon euh, ci ci ci tënk rek lan ngay lan ngay wax lan mooy seen relation d'abord. bon je crois ça a commencé par le hip-hop relation grand frère petit frère après mot fraternel et puis. dem ba xamante ak waa may def émission dem di interview euh, yaayam et tout on a de bonnes relations de même que son staff mm. gars yi yëpp et on a fait beaucoup de morceaux tamit sentirante lu bëri ba gars yi sax dañuy naan yow Ngaaka a nga préféré quoi tu vois alors que voilà peut-être a un bon feeling mm-hmm. et dafa jovial dafa dafa bàyyi mm-hmm. il est très <laughs> simple jovial humble et c'est quelque chose qu'on apprécie merci beaucoup dañuy da ngay passe micro bi ki nga xamante ne moom mooy Kals euh, Kals euh, tey bokk na ci ñi nga xamante ne ci début carrière Ngaaka Blindé participer nañ participer na ci nuyoo la ak mbokk téléspectateurs yi lay seetaan balaa ngay wax li nga xamante ne moom mooy sa relation ak moom. Euh, déjà merci beaucoup Bijou ak euh, ñi nekk ci plateau bi yëpp ma leen di nuyu et puis di remercier bu baax Ngaaka c'est un plaisir euh, parce que je pense que jour bi ñun ñëpp dañu yàkkamti woon nañ ko am cest jàkkaarloog Ngaaka Blindé bi nga xam ne moom la ñu xam un artiste complet euh, mu waxtaanaat ak sénégalais yi parce que je pense que loolu lu euh, waroon am ci dundam la et puis pour man lu ñu lu ñu war a tourner la nekk ci leneen donc lii c'est vraiment un plaisir ñu jàkkaarloog moom et surtout choix bi mu porté ci ñi toog fii ñëpp parce que ñi fi nekk ñëpp soo leen xoolee euh, jarul sax moom mu lay expliquer li nga xam ne am na ay relation yu particulier ak ku nekk donc loolu ñu ko ci ñu ko ci remercier euh, li may wax peut-être mooy retour bi yàkkamti woon nañ ko euh, spectacle yi yàkkamti woon nañ ko mais surtout waxtaan bi yàkkamti woon nañ ko parce que loolu moo ci ëpp solo pour que état d'esprit bi nga xamante ni ak gis-gis bi ñu daan am ci Ngaaka Blindé ba tey mu des nous on a eu la chance peut-être bi muy yegg si ñu fekkee lu bëri ànd ak moom ba léegi et on espère que liy des sax moo ëpp li nga xamante ni moom la jot def te dañ koy ñaanal parce que on sait qu'il a du joxal ma Dabren joxal ma ki nga xamante ne moom mooy baxaaw micro bi mu daal di nuyoog moom tamit wax li nga xamante ne parce que yow tamit participer nga ci carrière am dama lay bàyyi nga nuyu. maa ngi nuyu ñu toog ci plateau bi yëpp di nuyu mu nga xamante ne aussi ñu ngi seetaan à travers 2STV euh, di leen nuyu Bijou di nuyu aussi Ngaaka. Euh, di wax ne euh, relation bi ma am ak moom sénégalais yi xam nañ ko donc mu nekk loo xamante ne benn relation la boo xamante ne entre petit frère la ak grand frère donc dafa mel ni comme dañoo am lu ñu bokk lu mel ni ndey ak baay donc mu nekk nit bi nga xamante ne ne euh, lépp lu muy def rek balaa kenn dina ma woo man lay njëkk waxtaanal ci lépp lu mu am donc mu nekk nit bu flexible mu nekk nit bu gëm boppam mu nekk nit bu dal nit bu gëm yàlla tamit parce que gis nañ tolof tolof yi dañ déggante mais chaque fois day nangu ndogal bi yàlla def ci moom donc mu nekk nit bi nga xamante ne ne xam naa yu bëri ci moom xam na yu bëri ci man parfois mam lu ma metti mu ñëw trouver ma solution mun na doon aussi vivre donc may wax rek tey honneur la tamit la fekk mu def choix am si ñun parce que lu yàgg rek dëgg la du ñun rek la xam comme artiste wala du ñun rek lay fréquenté mu ngi fréquenté ñeneen ak ñeneen mais choix bu ko defee suñu c'est parce que am na lu mu yëg si ñun am lu mu santé si ñun euh, moom mooy mujjee wax parce que Sénégal yëpp ñu ngi doon xaar <laughs> retour comeback Ngaaka Blindé mhm. mu fas mu jàkkaarloo ki nga xamante ne moom mooy Pape mhm. parce que euh, balaa ñuy ñëw tamit xam nga ne man du la bàyyee noonu faaw ñuy ñëw ci restitution des faits yi fii du ne loolu bigi toog na toogaayu laaj la ko <laughs> ah euh, la ko ñoom dama leen di bàyyi ñu nuyoo pëtëxlu wax li nga xamante moom mooy seen question balaa ñuy jàll ci coroog yu ni mel parce que ñoom dañuy toog coroog moom day toog tout au de l' émission mm-hmm. mais nanet ak nga xamante ne moom mooy bigi dañ leen daal di libéré léegi léegi dama leen bàyyi ñu def seen partition ñu ñëwaat léegi léegi ci ngàttal ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi ci plateau c' est vraiment un plaisir ñu bokk ak suñu confrère animateur et journaliste euh, kontaan ci a en face benn kenn dootu ko présenté de par ses textes ci identité am ak flexibilité bi nga xamante ne am na ko suy suy suy rab donc mu nekk koo xamante ne également macha allah euh, li fi jot jàll bëri na mais comeback bi dafa nekk loo xamante ne dafa def buzz parce que ñu ci bëri ñu ngi naan pourquoi ngaa ko ñëwee ak égoutri lan moo tax waxul vécu yam bëggoon nga tontu ci loolu. Mmh. ayca euh, dañuy da ngay daal di jox ki nga xamante ne moom mooy euh, Biggi balaa ngaa ko di ci di ci tontu alors di nuyu ñëpp xam naa Ngaaka moom nekkatul koo xam ne dañ koy présenté ci scène bi parce que lu ci bari apporté na ko ci euh, rab bi donc am na ci ñoo xam ne dañuy naan ak li mu li jot am ak li jot a xew dañ koy tëkkale ak Akon tuuti donc moom ñoo xaw a niroo yoon. Mhm. li dal Akon dal na ko aussi ñu bëgg ci xam suite bi am na ci ñoo xam ne sax dañuy naan est que li dal Ngaaka dëgg la mhm. est-ce que du euh, télé wala dara donc vu que ni am na ci yoo xam ne son yi mu njëkk def dafa mel ni dafa am benn fil bu leen lié ñoom ñëpp mu jékki-jékki yëf yi daanu donc dugg ci loo xamante ni bëgg nañu xam pax boobu noonu nga duggoon lan nga fa daj ak lan nga ci am leçon boo ci comprendre ak euh, am na ci ñoo bari ñoo xam ne bañ nekkee foofu daan nañ bind wala bu ñu génnee day créer bomb comment tu te sens bi gi lenn rek laa lay tënkal ci li nga wax léegi cent mètres de la réalité ngaaka euh, dégg nga li nga xamante ne moom la nga net wax ah euh, égo trip bi nga ñëwee mm-hmm. ah pourquoi yow waxoo si sa vécu nga ñëw rek tënk li nga xamante ne moom mooy nga commencé rek dal gaa yi ngaaka doo def ndànk fi nga jógee méttiwul wala ah bon maa ngi maa ngi rafetlu aussi ñoom seen présence parce que ñi nga xamante ne yàgg naa leen la avant même problème bi yëpp di am te tamit bi may nekk si biir si biir jeel bi tamit doon naa gis seen émission ak émission ñëpp a ah, ñu nga xam dañ doon taxaw Ngaaka Blindé di jox euh, seen ay invité temps d'antenne pour ñuy wax en fait si seen problème et loolu c'est déjà énorme mm-hmm. donc euh, pour ñëw si si si kii question Nanette enfin si sama vécu c'est-à-dire euh, peut-être yàlla ay mbiram man damay jëlaat lépp rek ma tegaat ko si loxo yàlla suñu borom quoi c'est-à-dire yàlla ay mbiram en fait du du lu doomu aadama sax di décider quoi cest à man bi ma génnee euh, son bi nga xamante ni moo génne muy bii game gaakaaka moom sénégalais yëpp bëgg ko mu génne di tëkkoo teg je pense même pas vingt quatre heures mu egg mu nekk tendance 1 egg ci ay 3 cent mille et quelques donc euh, ma gis gars yi ni ñu koy defee ay challenge bëgg ko ce qui montre que ñi ngi ma doon xaar ak doole ju bari quoi là may wax ni bokkul woon sax si sama ay calcul quoi bokkul si son yi nga xamante ni dama ko génnaale si kaso bi quoi enfin wax naa si sama vécu je pense son boobu bientôt dina ñëw wax naa si sama vécu def naa ci son bi nu ma dikkee enfin dañ doon nekk si benn tournage si son beneen vidéo bi nga xamante ni moo war a génn tey bi ñu nekkee ci tournage bi ba ñu pare figurant yi ci nekkoon di délirer xam nga ab bon ak kii bi quoi chaleur bi ñu naan bii géem nga kaako moom xam nga di koy wayanti quoi je pense affaire bi tournage bi su ma juumul même pas vendredi passé la su ma juumul vendredi bi bële na le bi gars yi naan bii gém ngaa moom ma déglu affaire bi affaire bi inspiré ma quoi comme comme d'habitude improviseur la quoi mm-hmm. ma ni lii nice na de gars yi ne koy nice ma lii war naa si mën a def benn son de passage maa ngi nuyu benn grand bu tudd ma dem gaalam seetu ko parce que moom mi ngi si tournage bi mu ne ma booy loolu pour naan da nga koy fooy ma boo ko defee son dina nice de ma dem sama gars le lendemain ma xëy ndékki rek di fonte quoi di fonte di ci freestyle ne dem studio ma def lii quoi ñu dem studio vite fait sang Wii Flac mi moom moo def vidéo bi dama ko defee ba pare sax dañuy wax naan non lii du vidéo waaye parce que affaire bi dafa ñëw de manière naturelle quoi. tu vois donc bokkul woon ci samay ci sama ay voilà quoi planning. Mm-hmm. mais incha allah rabi vécu yi dina ñëw en fait voilà maturité bu bees bi nga xam ñëw beneen vision bu bees bi nga xamante ne aussi am naa ko. par rapport ak musique par rapport ak àdduna aussi dina ñëw bientôt na ko ñëpp xaar quoi. jaajëf dégg nga bi nga xamante ne moom la wax léegi ah euh, que télé-réalité ba ca 100 mètres moom gars ko woon. Mhm. sa trajectoire dafa xaw a li nga xamante ne moom la Akon dund lan ngay wax ci question bi nga xamante ne moom la la posé. waaye bi aussi maa ngi koy jaajëfal bu baax a baax c'est-à-dire euh, comme li may wax li ma li ma daanalee ci nawet nit ku nekk sa àdduna peut-être di nga am noo koy bëggee mu demee. mais ni yàlla bëggee mu demee yow mënoo ci dara quoi noonu kese lay demee saa à dire tey muy Ngaaka Blindé muy Akon muy keneen ak keneen même bu fekkee ni dañu nduroo vécu man nekkul man maa man maa choisir wala man maa bëgg nduroog vécu Akon wala man maa bëgg en fait jaar fii nii ma jaar mais yàlla suñu borom mooy bëgg peut-être euh, nit ki ne nii la koy jaarale ci life am quoi et après da ngay sant yàlla san ni ngay doolee sant yàlla mooy bi ñu ci nekkee yàlla aussi may na la kàttan ak xol ak xel ak ngëm ba nga xamante ni yow di ko dund quoi di ko dund ak sa sang-froid di ko dund comme si ni ngay ni nga ni nga yàggee dund bien avant problème yooyu am du du comme ni wax du télé du télé réalité dëggantaan yaay la dund nañ ko xam nga vécu nañ ko mu metti bon entre guillemets du ma wax sax mu métti quoi parce que loolu weddi sax situation bi la quoi mais métti na Sénégalais métti na ñu bëree bëri mais terewul yàlla kàttana na nañ ci dooleel na nañ ci ba ñu dund si ak jaamu génn si ba tey ñu koy nettali quoi. d' accord mhm. Ngaaka balaa may ñëw ci ci consultant yi parce que ñoom faaw ñu wax ma exactement est ce que comeback Sénégal artiste bu dugg jël génn dina ko réussir loolu faaw ma ñëw ci question même balaa boobu faaw nga ñëwal ñu aussi ci restitution des faits Ngaaka bii il faut nga wax ñu papier A4 la. wala billet yi dëgg la. <laughs> Faaw billet yi papier à carte la. non say propos man recto recto verso. say changé du mës a changé. <laughs> mais il faut mu changé xam nga lu tax. Mm. Euh, parce que tamit il faut nga nga ñëwaatal ñu. parce que tamit ngaaka tamit teg plateau bu toll nii te duñu laaj ngaaka. Mm. <laughs> billet yi est-ce que dëgg la wala du dëgg. ba pare beneen bu ci topp. Eh. mooy. Euh, sa arrestation ni mu demee ni mu gaawee il faut nga ñëwaatal ñu ci fee yi parce que nit nga tamit un an gisuñu Ngaaka Blindé Mm. oui comme tu dis en fait. Euh, li nga laal ndox pour ma bañ koo fàtte. parce que mm. moom moo ñu tax euh, li nga xamante ne moom mooy plateau spécial bi am. Euh, ñuy gërëm ki nga xamante ne moom mooy waa Aquaterra ak ki ko moom muy Yatasaay wax dëgg mm. yàlla. ak am ñu leen di gërëm bu baax a baax a baax a baax ñoom nee naa la plateau bi yëpp Aquaterra bleu blanc ñun ñii ñëpp Aquaterra lañ soxla. maa ngi ñëw ci yow Yatasaay. ok en fait maa ngi profité di ko siyaaraale bu baax a baax mu nekk grand bu cool. laal xam nga Yatasaay ko bu baax a baax tey mun naa ne sax fi ma génn nii moom moo ko moom moo ko def quoi donc maa ngi koy maa ngi koy siyaar bu baax a baax mu yàgg na ma support même may nekk si biir prison bi bi ma génnee tamit woo na ma ma ñëw seet si ko waaw mu taxaw ma quoi maa ngi koy siyaar bu baax a baax enfin comme li ngay wax ah cest à léegi comme li nga wax si ay propos damay daf may fàttali bu ñuy nekk enquête avocat bi maître Anta Mbaye maa ngi koy char bi char aussi avocat yi fa nekkoon yëpp mu ay ñoom maître Djibril Diallo voilà quoi ñoom maître Domingo Dieng. Massamba doo ko siyaar Baro xam nga ah. Massamba doo ko siyaar. <laughs> Samba Sall maa ngi koy siyaar bu baax a baax a baax moom moo nekkoon <laughs> waaw maa ngi bu baax a baax <laughs> voilà donc en fait dañuy toog quoi euh, bi ñuy nekk enquête. maître Anta taxaw ci ci kanamu Samba Sall moo nekkoon en fait juge euh, d' instruction mu koy naan en fait kii da ngeen ko war a bàyyi mu dem parce que depuis le début il a été toujours cohérent avec ses propos xam nga c'est-à-dire mooy bi ñu may jàpp police euh, centrale bu bu Parcelles Assainies ba bi may dem euh, comment dire centrale bu dakaar ba ni may déféré je pense que benn propos boobu noonu laa am muy papier à cadre recto verso et puis propos yooyu de Moussa Sall bu la neexee parce que avocat mën na laa wax loolu nga wax ko mais balaa loolu ñëwaatal ñu ci li nga xamante ne moom mooy fay mhm. Ngaaka Blindé parce que gars yi ne nañ ci tournage clip nga doon dem naa nga ma il faut nga ñëwaatal ñu parce que tungu du teew ñuy nataal ñun ah. lépp lu ñu xam ci sa dossier ci média euh, euh, euh, pense que sénégalais yëpp xam nañ xam nañ xam nañ fay mu demee sénégalais yëpp xam nañ ko peut-être lan mooy am mooy ñu gëm ko wala ñu bañ ko gëm te loolu aussi du nekk si man lay si man lay dépendre cest ku ci nekk yaa moom peut-être sa xel comme ni ñu koy waxee yaa moom sa gëmukaay ci un peu c'est-à-dire man euh, woon naa tournage ak euh, Young Fresh je pense que tey kenn du ko présenté Sénégalais surtout si communauté hip bi xam nañ liggéeyam bu muy def bu baax a baax bi ma defee benn son bu tuddoon euh, argent maison ma femme et mu nekkoon ma tuddee woon son bi am femme c'est-à-dire mu nekkoon benn son boo xamante ni euh, paroles yi c'était des paroles françaises yu ma doon nekk xam nga di jàppiser mu nekk benn beat euh, bu bu bu bu xaw a afro c'était juste pour la l'affaire sur le plan international cest à parce que tey ñun nouvelle génération bi dañu am sas bi ñu defee son bi ak Pipa Flow ñu génn si nawet bi même rek ma yónnee ko kii bi quoi euh, li ñuy wax si hip hop flat c'est-à-dire bi nga xamante ne am nañ ko mu déglu ko rek yuuxu ne mu yii booy lii bu ñu xaar nañ ko vidéo vite fait comprendre nga ma ne ko gis nga loolu mu ne ma non lii bu ñu xaar mi ngi doon tombé ak décembre ma ne ok donc dañuy jéem a def vidéo bi vite fait comme ça si décembre bi ma mun encaissé ay date laal ay cachet yu baax xam nga pour mën a waat gérer waat sama life quoi ci am bi ñu toogee ñu waxtaan ñu waxtaan si scénario bi ni ñu bëggee def defee vidéo bi et tout ñu gis ni dañuy soxla woon parce que comme que son bi dafa am benn partie bu ñuy waxee argent am benn partie bu ñuy waxee maison ñu loué woon benn villa Saly am benn partie bu ñuy wax mama ñu amoon benn maire bu ko war a joué Sanex aussi waroon ci bokk waroon joué rôle papa bi nga xamante ne en fait da doon da doon da doon da quoi cest à xaw a mer ci benn doomam bu xaw a yor quoi jàmp ñoom ñëpp ñu bokkoon ci ci ci ci scénario bi mooy waxtaan ak ñoom après staff bi jëm waxtaan ak mannequin yi danseurs yi et tout rek lépp quoi ba lépp ok en fait maa ngi aussi profito di char Xaarim Thiam bu baax a baax mooy ki nga xamante ni moo defoon moo defoon billet yi et nekk aussi nit ku am ngëm c'est-à-dire munoon na ma munoon na ma mere war mu am lu mu gisee si sama comportement ci biir prison bi mais nekkoon nañ fa ñu dundandoo ko mu nekk nit ku yaatu nit ku aussi koo xamante ni mun naa ne Serigne Touba moo ko defaral boppam quoi après ma woo ko ma ne ko booy dañu am tournage bu ñu war a def et puis bi ñu waxtaanee ak Young Fresh daf ne dañuy soxla ay billets daf ma en fait suggère à ce que ñu def ay papier A4 ñu photocopie ko xool ba xam dina kuul mu ne maa léegi baal ma essayé su baaxee dinaa la woo ma wax la mu essayé naa mu ne waa booy mun na nekk kay mu ne waa si lu bëri rek loo xamante ni en fait si villa bi piscine bi et tout dinañ ko mën a use ba caméra yi su ko jëlee dina mel ni comme comme xaalis vrai quoi parce que boobu man sama sama biir bopp maa ngi doon bëgg def affaire boo xamante ni dina mën en euh, euh, euh, perse sur le plan international mun a concurrencer ak vidéo yi nga xamante ni mi ngi am sur le plan international mu def ko ba pare dama pare na bi mu paree ñu njëkk jàpp date pour tourner euh, ñu ñu ñu ñu reporté ko parce que Young Fresh dafa amoon envie vraiment dafa dafa pour def vidéo bi mhm. mu a booy il faut ma xaar caméra dafa am caméra yu war a ñëw mais moom ma xaar caméra boobu parce que li ma bëgg def si vidéo bi loolu rek moom ma ko mun may ma ne xaarim léegi teel affaire bi parce que dañu reporté tournage bi bu ñu jàppaatee beneen date comme ça la wax bu ñu jàppaatee beneen date ñu nekk si réglage yi ah, mannequin yi fii xam nga répétition ak danseurs yi fële tenue yi xam nga raj raj yi nekk si xam nga sécurité yi xësari xës gars yi nekk ci quoi ba ci jour tournage bi ñu waroon jógee mixta vers les 5 heures du matin parce que réalisateur bi def na dafay soxla view fajar bi donc 6 heures war na fekk voilà lépp pare ñu jël benn villa mixta parce que on était plus d'une trentaine de personnes ñu ne bu oto bi di dem di jëli ku nekk day métti nañu daje mixa comme sa après oto ñëw jëlandoo ñëpp ñu dem ci wàmb après ñëw ba ci mixa ba ay vers les 2 heures du bon boobu fekk na li ma waroon réglé yëpp réglé naa ko am sama benn copain bi nga xam ne moom la ñuy wax Idi Idrissa je pense kenn gënu ko sonn aussi ci problème bi ay activité am la bàyyi bàyyi bàyyi liggéeyam bàyyi lépp toog Sénégal mhm. nekk ci problème bi di ko xeex dégg nekk nag mais terewul dafa jàpp rek quoi parce que xamoon na en fait positivité bi nekkoon ci biir situation bi quoi. Idi woo ma ne ma booy foo nekk ma ne ko woy maa ngi mixaane saa bi bon gars yi ñu a delluwaat ñëw ñu dajal. xam naa parce que léegi dans trois heures de temps dañu war a quitter mu ne ma man sori ma mixa maa ngi ñëw kon foofu ma ne a ah, d'accord léegi jaaral mu jaar xam nga nuyu gars yi parce que moom aussi dafa yàgg sonn si samay affaire bi mu nuyoo a mi ngi takk benn montre quoi mu ne ko bàyyi bii gold bi nice na de bii jox ma ko peut-être ñu soxla ko quoi. Mhm. nii rek fekk ñu ngi waroon récupérer waale ay gaaleem mu ma nañ demaale gaale parce na beneen kii bu mu waroon jox matadi aussi mooy booy bi may àndal mu taal otoom jiitu ma taal sama oto topp si bi ñu ñëwee ba buntu gaaleem net rek. enfin ma jeeg saay benn auto police moom wàcc na dugg ci gaale bi matadi mi ngi naan ma booy ma wàcc ma naa wax booy bul wàcc waaye dañuy gën a perdre du temps quoi xam nga voilà waay waay waaw demal mais fais vite ñu matadi demee ànd ak idi dugg ci biir gaale idi rek auto bi ñëw droit sama kanam après heureusement je dis entre guillemets policiers yooyu xam naa leen quoi parce que Parcelles Assainies lañ dëkk. Hmm. et puis man bon bi ma doon job maa ngi jobee Padois ak Guédiawaye donc à chaque fois foofu laay jaar am na ñoo xamante ne aussi sama benn grand frère bu ñuy wax Ibulaay daf ma leen doon présenté mooy benn gan bu tudd xuma ñoom King et consort ba des fois sax dañuy jàpp ay nit ma dem ñaan leen ñu bàyyi. Hmm. bi ñëwee taxaw sama oto. ne ma eh waaw man eh xuma naka mu gaan king na mu lépp jàmm cool fekk maa ngi jël enveloppe bi noonu sànni ko si tableau de bord bi quoi man aw ma sax pression que lii nii infraction la affaire demee noonu mais li ñuy ñëw rek def nii torse rek king ne ma lii lan la ma ne ko waaye ñun dañoo am benn tournage bu ñuy def sali nii xam nga dañu war a kii da ay cinq heures du matin affaire yooyu mu ne wàccal oto bi waaye xuma gaan baa la nga def nga naan ma wàccal oto bi ma gis en fait ak caractère ma xam ne kii fawul ma wàcc oto bi ñu dugal ma si auto police bi taal sama oto après ñu jubali commissariat quoi bi ñu ñëwee si sama mayen man mayen naan ñii dañ may tardel fii ba 5 heures du matin 6 heures ñu bàyyi ma fi après ma faussé sama tournage quoi mais bon bref. te lay bàyyi loolu laa xalaatoon quoi. parce que musuma am sama bopp que dama def dama def délit quoi dama def infraction xaw ma lu woon sax en fait ay dafa laaj ay autorisation wala affaire pour man bon tant que man maa ngi am intention bu positive après voilà quoi damay rester serein. ñu dem si commissariat bi gars yi mannequin yi ñëw danseurs yi ñëw ñëpp ñëw tax fees dell ak seen valise quoi parce que ay trois tenues lañ doon soxla ci tournage bi bon après moi je me suis ma amoon ci bi quoi ci ci papier A4 bi quoi. après ba ma ci biir yi <laughs> après bi ma bi ma nekkee foofu ñu téye ma ma fanaan bi ma yeewoo ay 8 heures je pense 9 heures ma jekk si ay rek gars yi rek sànni ma benn kii quoi benn journal entre guillemets l'observateur quoi ma liir gis affaire yi nekk à la une. parce que bi ñu may jàpp ñu ma jàppee ak xëcëri xës muy sama garde du corps ak euh, ak euh, ak yande benn booy ndeysaan bu ma romb rek si tali bi na ko booy dañu am tournoi yéegal yéegal booy dama soxla ay Jordan booy yu yu weex tàll booy te sant bi léegi ñu dem tournée dañ dem ga wax ma ma fan lañ ko mun amee mu dugg sama oto noonu ñu jàpp ko Awa Ndiaye muy xale bu jigéen bi yaayam moo waroon joué rôle lu maire bi ci ci vidéo bi dama dem ci gaaleem ne ko maire dañuy am bis buy mais comme que bis bi xale yi ñoo siy dugg léegi yow yow toggal ci kër gi bu bis bi déparé man damay taal sama oto ñëw jël ci kër gi après ñu demandoo ensemble. mun naa jàppandoo la ak mel. ak doomam. léegi doomam ne ma comme que Mixa laa jëm léegi kon man naa la naa ko yóbbaale moom tamit. Mhm. ñu jàppandoo ñun ñëpp xam nga. après bi ma xëyee gis l'observateur affaire bi nekk à la une ma wax gars yi ma leen dinañu defeere parce que xam naa affaire bi du am benn ampleur bi ba dem bi nekk à la une ba pare ñu ñuy bàyyi mais bon. nañ rester serein quoi même bu ñu bàyyi même bu ñu yóbbee dañuy bàyyi ñu ñibbi parce que man xam naa. laps bi ñëw nga liir ko xam ne que yow fii dara sësutu fi dañ la war a defeere. Mhm. anyway mhm. pour ñu tënk ko. Mhm. ah oui bu ñu bu ñu ne dañuy defeere ma ne dañuy defeere mais bu ñu demee dañuy bàyyi quoi parce que boobu maîtriser wu ma sax en fait euh, euh, euh, kii nu mu tudd processus bi nga xam ne justice daf koy jël quoi. jàpp parce que comprendre ma si woon loolu dara dama ne dañuy dem tribunal dañuy defeere bu ñu defeere tribunal la ñuy dem direct ñu àtte ñu après ñu bàyyi ñu ñibbi bi ñu demee. Euh, tribunal ñu toog fa ba ay dix-huit heures dix-neuf heures presque vingt heures ato ki ñëw garde pénitentiaire yi ñu yóbbu ñu central ñu dem central toogaat fa chaque jour ñu indi ñu tribunal yóbbu ñu central ñu indi ñu tribunal yóbbu ñu central ba mu mat presque ay une semaine man comprendre ma ba léegi sax lan moo xew dañuy nekk si biir kii bi en violon yi maa ngi foo ak gars yi xam nga di rey di fecc ñoom di woy parce que musuma xalaat ni voilà voilà pour lii daf c'est un grand problème ba une semaine après Samba Sall jël ñu mu nekk juge d'instruction bi mu ñëwee mu jël gars benn benn bi mu ñëwee laaj ma man ko way affaire yi man maa ko defoon ci oto bi mais. <laughs> mais yow xanaa yow comment tu as eu l'idée defar ay faux billets xanaa xamoon ni loolu fraude la. enfin pas fraude quoi c'est-à-dire euh, euh bon. bon du ma wax sax c'est-à-dire ma ne parce que am na sax Sénégal quoi cest à am na si si si yàgg na ko genre artistes yu yu am benn kii quoi benn statut international yi dañ koy yàgg def si seen ay clip et puis même Yang Fresh boobu noonu lu tax mu suggéré ma ko parce que moom def na ko fii vidéo et puis kiiwul quoi eggul fenn peut-être man maa am malchance bi ma bi ma nekkee di di di di def vidéo bi mu suggéré ma asko ñu defaat la même chose pour pour marquer en fait vidéo bi sur le international après gars yi tombé si man quoi tegal foofu sa baaraam balaa ñuy egg 100 euh, Simon tu penses que ni euh, xaw Simon wala Kalz wala wala wala Baxaaw ku ci participer si loolu rek yéen est-ce que yéen yaakaar ngeen ni que propos yii mu tenir cohérent na wala. mais c'est très cohérent parce que booy waxtaan ak Idy mais balaa ñuy ñëw ci affaire cohérence sax euh, on a donné l'exemple de Akon et Ngaka ça peut pas être le même exemple parce que Akon ñëpp gis nañ ko il a confessé ne. dafa nekkoon ci illicite dafa nekkoon ci lu bon. voilà mais que musique bi moo ko indiwaat. Mhm. kii musul nekk ci lu bon. kii musul am antécédent. Mhm. musul nekk ci yooyu quoi tu bi ñu waxtaanee ak Idi te encore il faut que ñu jaajëfal Idi bu baax. Mhm. parce que nu ko ngaa ko waxee exactement noonu la. bi ñu waxtaanee ak Idi il nous a expliqué exactement lii nu mu demee nii nii exactement. quand on am na benn moment sa xel day jaxasoo parce que ñun ñëpp dal nañu. nit yi woolo booy dem ci nànk dëgg naa booy bi dañ ko doon topp def ko ngan di gangster quoi. <laughs> ngan di maamu gangster xam nga mais xam nga ñun dañu sob dem toog ak avocat yi. Baro ñu ngi koy nuyu bu baax. Mhm. Euh, maître Moustapha aussi ah. Moustapha Dieng mu dëkk Géejawaay. Ah, moo dëkk Géejawaay parce que Moustapha maître Moustapha moo ñu de mu ne ma mu ne Simon. lii photocopie la A4 xam nga des papiers blancs là yu nekk ci imprimerie. parce que billet billet billet billet billet wu xaalis day am numéro. mu ne ñu gis nga rebord yi sax da ngay gis lu weex li c'est-à-dire lii xale boo ko tegee ci loxoom sax day xam ne du xam nga donc ñu commencé poser question yenn avocats yi et c'était c'était la même cohérence ñu ne mais attends nu mu demee nii et voilà il s'est pas ça la tamit ñu koy big up parce que après un moment il fallait joindre certaines personnes. Mm-hmm. euh, on pouvait pas le faire directement. Mhm. parce que dafa am lu ñuy woote ci dëkk bi. Mhm. am lu ñu doon benn discours bu ñu doon tenir le même cas que Malal. Mhm. Malal tamit tu donc mais ci suuf chacun a essayé de joindre quelqu'un ku mu ku mu mu xamoon donc c'est très cohérent lu muy wax mais waruñu ko comparer quoi comparer wooy délinquant jeel et cetera non lii nee na ci moom la tombe li mu def noonu seetaan nañ ko ci ay série fii. seetaan nañ ko ci benn clip. effectivement xam nga ay autour de la piscine billets di taw te je crois clip boobu la Young Fresh def. Mm. tu vois mais malchance bi ci moom la la la tombé. et mm. puis euh, yàlla jëlee na ko fa sant yàlla alhamdulilah mais on a on n'a pas eu de doute honnêtement on n'a pas eu de doute. Mm-hmm. bon man li ma ci li ma ciy wax c'est-à-dire que euh, li si ma wax c'est très important du loo xamante ne nii euh, mën nañ ko tëkkale ak li li dal Akon ça c'est un deuxième deuxième chose bi mooy. pour man euh, presse bi aussi comme li mu wax tout à l'heure sur l'observateur ak ñeneen ñi nga xam ne ñëpp reprendre nañ situation wu Ngaaka Blindé bi pour man presse bi aussi dañ ci jouer benn rôle bu bu boo xam ne euh, moo gën a jox euh, cas bi moo ko gën a jox ampleur c'est-à-dire que ni mu koy expli expliquer nii nga koy dégg ci nit ku def presque un an ci prison. sooy xalaataat da nga naan non c'est quoi. parce que jaru ko. en réalité et en connaissant l'artiste aussi da ngay xam ni Ngaaka man j'ai eu la chance peut-être avant affaire bi di am bi muy intégré Keizit on a travaillé ensemble sur le projet bi muy dugg biir Keizit. je savais yan idée la amoon moom lan la bëggoon def spectacle yi mu bëggoon def. waroon na def grand théâtre moment boobu noonu waroon na def ay tournée nationale comme international waroon na def lu bari ba ci réalisation vidéo bi muy def c'est-à-dire que du loo xam ne nekkoon na ci boppam ndogal la certes mais aussi on peut dire que tey am na euh, je dirais pas la justice sénégalaise parce que am nañu confiance suñu justice te wóolu nañ leen xëy na dañ doon def seen liggéey ba mu leer ñu doog ko bàyyi mais c'est un peu dommage en tant que artiste bu mel ni Ngaaka aussi il est très jeune mm-hmm. dal voilà Euh, baxaaw ñëw baxaaw nañ ñëw si baxaaw euh, Kals jàllale ma micro bi ci mu ñoom caat da ciy ñëw euh, Big Taf da ciy ñëw Coro def ciy ñëw parce que ñoom ñoom ñooy presse bi te la presse wax dëgg yàlla tey teew nañ fi nga xamante ne moom mooy plateau bi parce que histoire Ngaaka dañ koy tënk tënk tënk tënk fi ñu toll rek fi lañ toll instant yi nii ci ci ci ñu ñu jotee information bi eh. foofu lañ toll foofu la ñuy ñëwee ah firi acca baxaaw ñëwoon waaw mooy li Ngaaka wax même discours bi la tenir depuis presque une année ferme. Mhm. Euh, pour wax ne euh, bi mu njëkkee am problème boobu man bi ma ko fekkee police parcelle euh, ñi mu xam ci policier ma it ñooñu laa xam ci policier te bi ñu lay expliquer cas bi dañu lay expliquer li am te li nga ko wax loolu moo am li policier bi di wax loolu la Sanekh di wax fépp. Mhm. donc pour wax ne nag moom lu mu wax après nit ñi nag. ku nekk ak ku deew ak sa bàmmeel mu ngi jugé nit nu mu la neexee ay lu nekk dégg nañ ko ci dossier bi non war leen ci defee nii war leen ci defee nii mais li ëpp important tey man xam naa ko bi ñu ci waxtaanee keroog bi mu njëkkee toog maama bu ñu waxtaanee mën na ko ngaa ko mënuma mënuma baxaw lenn rek laay def mënoo ko lan la mën a ma baal ñëpp ñi nga xamante ne wax nañu loo xamante ne xamuñu ko ci dossier bi te maa ngi ñaan yàlla mu jéggal leen parce que su ma leen toppee man seen bésu bàmmeel dana dana dana dana ndax dañ ma tooñ ba ci kanamu yàlla ma ne ko nag gis nga ngaaka mën waa ma ko àdduna bi ñu nekk nii jàppal na àdduna nii la nii lay tëddee le destin de Dieu il est inévitable yàlla moo waxoon na dañ fa jaar ña fa nekk gënoo leen ci dara te bi mu demee foofu da ngay am impression que ne sax ñu ñoo gën a bëgg Ngaaka Blindé que ñi nekk si biti di remercier franchement waa pavillon spécial ay Babacar Diouf franchement ñu nekk ay nit yi nga xamante ne dañu jëloon Ngaaka jàppee ko comme doomam mu nekkoon li nga xamante ne prison bi dañuy boo daan dem visite dañ lay wax sax la sa xel na daal fii ngaa ko jàmm la fi am ba abadan daay man non loolu damaa bëgg mu wax ko ci gémminu boppam xam naa ne côté boobu ba xaaw uh-huh. moom dina ci ñëw incha allah balaa ñuy ñëw parce que dafa am fu ñu toll uh-huh. euh, fi ñu toll mooy fi nit yi fexe ba jot information bi foofu laa bëgg ñu ñu ñu waxee parce que tey euh, Coro certes instant boobu nekk woon L'Obs mais tey euh, yaa ngi nekk ci organe de presse boobu naka ngeen di def bay jot information yi nga xamante ne police la directement ak journaliste yi ak ñun naka lay demee d'accord parce que Big Taf da nga ciy ñëw Thiat euh, di nga ci ñëw tamit parce que yéen ñetti yéen ñett ñi yéen ñii yéenay faar ci émission bi. excuse-moi warul neex léegi rek parce que booy bi génn na et cetera. Mhm. mais c'est la presse moo enflammé affaire bi ah. moo indi problème bi yëpp ah. c'est eux qui ont parlé de machine. Mhm. de machine de de de fabrication de faux billets. Mhm. Et il faut arrêter quoi. tey ci moom la dal suba mën na nekk yow man wala n'importe qui ci plateau bi. Thioro damay bàyyi nga tontu. donc il faut que les gens arrêtent tamit quoi ñoom ñoo foutre du feu dans. dans ce truc là waaw boo ñu attaqué ba pare wax du dëgg. Thiat mën nga jëlaale micro bi maa ngi nuyu bijou maa ngi nuyu Ngaka mhm. maa ngi nuyu ñekk ci plateau bi Simon Baxaw Kalz nuyu naa ñëpp Pape Sidi euh, bijou da nga dañ en dañu toll ci point bu am solo euh, moi je pense personnellement que balaa may jël sama casquette journaliste damay wax déjà moi personnellement et je parle ci contrôle Pape Sidi mhm. euh, xam na ni je faisais partie des premières personnes yoo xamante ni j'ai même pleuré pour le cas Ngaka Blindé primo parce que am nañu relation bi. Mm -hmm. la deuxième chose parce que man dès le début j'étais convaincue qu'il était innocent. Mm -hmm. maintenant innocence boobu c'était pas à moi de le prouver. Mm -hmm. c'était pas à toi ni à Simon ni à qui que ce soit. Mhm. dafa def infraction et il a fauté. il a fauté dañ koy nangu parce que dafa def infraction sama laaj après foofu lay ñëw. Mhm. maintenant la presse. Mhm. duma mbubbu avocat presse bi yëpp parce que euh, dans chaque secteur wala métier boo dem y des brebis galeuses mënul mhm. ñàkk mhm. mais je prends l'exemple de l'observateur bi muy def loolu à la une autant moi j'étais là à la 2STV oui. j'étais pas encore au groupe Futur Média mhm. mais balaa mayu ma leen te su ma juumul discussion bi man ak Pape Sidi on l'a eu fii benn après benn matinale ma ne ko du leen blâmer parce que jusque là waxaguñ lu dul dëgg Ils ont dit Ngaka Blende a été arrêté, ce qui est vrai. Mm -hmm. Il a, ils ont dit faux billet lañ ko toppee ce qui est vrai. Mhm. donc pour man fen amagul foofu. Mhm. maintenant bu ñu demee ba ñeneen nii wala ba tey orga euh, presse bi naan am na machine am na lii am na laa am na machine tamit mënuñu ko miim. Mhm. parce que bu fekkee ni sax dañ ko photocopier photocopier c'est une machine. on est je suis désolé mais noonu la demee. maintenant euh, après peut-être am na ñu aggravé oui parce que euh, nit ki mën te dañu nekk ci liggéey boo xamante ni su ma jëlee cas wu presse écrite par exemple euh, qui traduit tra qui traduit trahit. Mm-hmm. dañu nekk ci métier boo xam ne yenn saa yi sax di nga def interview ak Simon mu waxee la nii nga war a bind. dal nañu ba ñu ko voilà donc mm-hmm. ça. c'est des choses qui arrivent. Mm-hmm. mais nañu jàpp ni que même bu amee ni organe bu juum wala journaliste bu juum dafa juum de bonne foi man loolu mooy sama ngëm-ngëm. maintenant nañu nangu ni tamit même s'il y des choses yoo xamante ne c'était pas réel y a une très grande partie de vérité dans ces articles là qui ont été publiés mm-hmm. ak ku mu mën a doon ak organe bu mu mën a féete mm-hmm. parce que bu dee dañ ko jàpp jàpp nañ ko nañ mën a jàpp ñu ko jàpp nañ ko bu dee faux lañ ko jàppee faux billet lañ ko jàppee bu dee machine la ñu wax photocopieuse lañ ne moo ko photocopier photocopieuse c'est une machine. Mhm. donc jusque-là y a pas y a pas y a y a mensonge je pense maintenant comme je dis nit mën na juum mu juum de bonne foi. Mhm. donc pour ça peut-être loolu moo nekkoon sama xalaat par rapport à ça na balaa may dem juste dinaa laaj ngaaka benn affaire parce que moi du durant tout le procès. coro dama dégg ngay wax ni. xamoo infraction nga def procès bi fi mu ne nii xam nga lañ toll. Euh, dañu toll ci. Ngaaka Blindé duggagul 100 mètres li ñu def ba mu dugg 100 mètres foofu lañ toll mais euh, damay ñëw ci ki nga xamante ne moom mooy caat euh, ak euh, Big Taf parce que yéen wax dëgg yàlla Sénégal kenn dootul naataable liggéey bi ngeen fii def quand wax dëgg yàlla liñ naan bu bu loxo sa loxo bu setee nga mun a bokk ki ay mag ndab mais yéen yéen a ngi def liggéey boo xamante ne Sénégal kenn dootu ko naataable Sénégal set sans limite et cetera donc ñu leen di féliciter d'ailleurs si li nga xamante ne moom mooy trophée bi ngeen am sans limite sans limite sans limite sonal tu vois donc euh, problème bi fi mu egsi boole ngeen ci yu ci bokkul problème mu wari bi problème mu gel bi problème li ngeen ci relaté bi taf fan ngeen ko teg ñan ñu ci relaté yéen sans limite laay waxal presse bi presse écrite bi foofu laa nekk. voilà mais en ligne bi laa nekk a fi nekkal presse en ligne bi. voilà dégg maintenant man dama lay nuyu di nuyu Ngaaka et puis di nuyu ñi fi toog ñëpp sànq euh, pour rebondir ci li Simon wax c'est normal et puis ku nekk ak sa opinion. moom xamul presse bi bind xamul presse bi bi confirmé xamul presse boo xam ne dafa sos c'est normal mu ne presse écrite yëpp wala mu ne presse bi d'une manière générale man de ce qui me concerne à sans limite. Mhm. moom dëkk naa ko micro. Mhm. laaj ko nu mu demee. Mhm. pour ne pas que ñun sans limite ñu bind lu yoon. dëgg la ni mu demee. pour xam balaa ñun itam ñuy wax naka su dul noonu. donc ñun à notre niveau sans limite man big taf mi nga xam ne maay def émission yi foofu dëkk naa si moom micro laaj ko ni mu demee Pape Sidi Fall ak ñeneen ak keneen ak ñeneen mm-hmm. mais de ce qui concerne presse en ligne c'est normal chaque règle est confirmée par une exception. boo nee presse en ligne yëpp yam am na ñoo xam ne meluñ noonu dëgg la sans limite parfois nga dégg ku ne sans limite day def nii day def nii day def nii mais depuis que man bi ma fa nekkee ak ñeneen ni ñu fa nekkee je pense bien que ni am na nu liggéey yoo xam ne les gens ont beaucoup mm-hmm. de ce fait par rapport ak euh, problème mu ngaaka bi. Mm-hmm. man xam naa sans limite lim ci taxaw. Mm-hmm. te suñu PDG day taxaw carrément du problème moom la ñu loolu la ñuy njëkk a wax. et puis fi ngeen toll la sax. voilà donc de ce fait problème mu ngaaka bi man leer na ma ni et gis naa ko amut lenn loo xam ne ñi relaté nañ ko loo xam ne c'est vraiment injuste li ko kii waxee bu dee machine machine la bu dee jàpp jàpp nañ ko leneen lu ci nit ñi yokk peut-être nit ñee ko ci yokk mais leer na ma ni ñun sans limite et gis naa ko ko defuñu loolu. parce que moom dina ñëw ci li nga xamante ne moom la ci journaliste yi joxal ma caat micro bi balaa may ñëw ci caat balaa may fexe libéré nanet ak ki nga xamante ne moom mooy euh, euh, bigi nanet euh, tënkal nga tàggatoo jox bigi comme ça ñu daal di jàll ci li nga xamante ne moom. d'accord parce que euh, euh, Pape Sidi mën nga jege si si kanam. d'accord dañu wax waxu dañu dañu wax benn mot bu am importance muy taxaw. te Ngaaka dafa bokk ci benn hip hop boo xamante ne d'aucuns sax dañuy naan c'est l'espoir du hip hop ñu nangul ko ko donc ma bëggoon xam à travers si ce problème taxaw bi par rapport ak tes confrères yi nga xamante ne rappeur lañ parce que am na masse boo xamante ne dañuy def bruit na génn na génn mais am na ñoo xamante ne du ñu entreprendre. na ne sa question bi dama koy daal di tënk fi ma toll la ci ci bi la sa question bi da koy tàggatuwaale waaye dinañ ko tontu xam naa sa ginnaaw lay doon. baax na waaw juste euh, di remercier li nga def initiative bu baax la donc juste pour wax ni que dañuy apporter suñu ay euh, li ñu xam ci affaire bi parce que dafa complexe boo déggee sànq ma xooxu Akon le fait que mu dugg prison lool la doon wax parce que xuusuma ci li mu def te yaakaar naa ne ngaa ko deful mhm. donc euh, clip la wax na ko expliqué na ko di rappeler Simon ne que la presse tout le monde a besoin de la presse mhm. moom bi mu soxla singalam bi mu def contre Macky dafa soxla presse bi ñu jàllale merci même même si la presse fait des bêtises dafa publier ni euh, avant première bi coming soon bi li ñu naan bientôt bi ni ngi dañu yaakaaroon ne doon tagg Macky alors que ça n'a pas abouti. ngeen saaga ko nday wax lu ne n'importe quoi en sa faveur mm-hmm. soxla woon na presse pour deneen mais aussi euh, da ngay bàyyi xel ni presse bi nekku fi pour net benn nit wala benn ñaari nit wala leneen. askan bi la fi nekkal bi la fi nekkal te kaaw ngaa ko blende ni ko kii waxee tënk na lépp coro elle a bien fait de bien expliquer ce qui te elle a eu raison donc ñu ngi koy souhaiter bon vent te xam naa ne lii lu xéewal moo ci topp parce que on dit que ni année de consécration dina am lu rëy lu la dal ngay doog a jàll ci leneen félicitations. Pape Sidi Fall bu fekkee mën nga jege si Padre Mbaye maa ngi lay nuyu bu baax euh, wax dëgg yàlla yow boo fi ñëwee suñu suñu fierté la directeur mën ngaa jege si tamit de Padre yaa ngi ci biir jege bu baax nii ci kanam euh, euh, Thiat dama lay bàyyi nga nuyoo nga wax li nga xamante ne moom mooy sa partition. bon asalaamaaleykum Bijou maa ngi leen nuyu di rafetlu bu baax invitation bi tey mais di sant bu baax bi ñu gisaatee ngàkk parmi nous fierté la ci ñun parce que wax dëgg yàlla euh, coono mënul ñàkk ci nit euh, li nga xamante ni mooy ay gàllankoor aussi mënul ñàkk ci nit man nag bu ma waree ñëw tontu ci li nga xamante ni indi ngeen ko par rapport ci presse bi te Simon sunu frère wax ko c'est juste que ne si c'était euh, vente ñi nga xamante ni ñooy génn ci télévision bi ñoom ñooy clients yi te toujours li ñuy wax en en commerce mooy le client est toujours roi donc client bi dañuy soxla mais ñun tamit dañ koy soxla euh, ça ne veut pas dire que toujours li nit ki di wax day fausse euh, presse nekku fi lu dul éclaircir les choses mais aussi donner une bonne information euh, comme ni ko Coro waxee je pense que moom wax na lépp. elle a tout expliqué eh, effectivement noonu la demee kenn ku ci nekk buy jël question mbaa muy bind article mbaa muy def benn interview man personnellement j'ai fait deux yoo xamante ni benn bi Omre Zayen la benn bi Aba No Stress ñuy plaider à ta faveur pour nga génn ci li nga xamante ni mooy prison bi euh, li may wax rek mooy dund doomu aadama toujours li nga xamante ni mënul ñàkk ci moom day am ba pare parce que ñun ñëpp te gis nañ philosophie bi nga xamante ni moom nga génnaale bi nga jógee prison bi mooy yaa ngi koy prone bu baax Baay Faal gi euh, da ngay xam ne rek ci àddina mboo ci nekkee li nga xamante ni mooy jaar-jaar mënu cee ñàkk ndogal nag ak benn affaire bu ñëwee brusquement ci sa kaw kenn ku nekk ak interprétation bi ngay def mais nag du kenn moo la ko yéene ndax yow doomi réew mi nga te bu ñu sañoon toujours ci sunu wet ngay toog te ci kàttun sunu waroom noonu lay demee sama question nag bi nga xamante ni bëgg naa la ko poser euh, bokk na ci euh, est-ce que du imitation bu intense bi nga xamante ni sunu rappeurs yi tey du yow kese laa ko posé ah ñëpp imitation bu intense bi nga xamante ni ñu ngi koy jël di ko jëmale ci euh, <laughs> vis-à-vis à l'extérieur européens yi américains yi en bijou mm-hmm. euh, ñi nga xamante ni toujours dañuy wane ñu jéggal ma ci kàddu gi sexe xaalis euh, et ce n'est pas ça en réalité qu'on a besoin ñun on une culture boo xamante ni dafa dafa grave est-ce que jarul. mais Thiat balaa ngay balaa ngay terminer damay pëtaxluwaale rek wax euh, ki nga xamante ne moom mooy Karajo bu fekkee ni que heure bi jot na euh, dañuy dugg li nga xamante ne moom mooy euh, Emma Style bi boo fa duggee rek ñun ñu daal di continuer suñu émission yéen téléspectateurs yi ñuy seetaan ah émission bi di ngeen ko mën a seetaan aussi li nga xamante ne moom mooy dimanche après lii ñun dañuy continuer wéyal li nga xamante ne moom mooy suñu plateau ba tey ñuy gërëm ki nga xamante ne moom mooy Yata Saay li nga xamante ne moom mooy Aquaterra àndu na ko ñun euh, dañuy continuer ñun suñu plateau ñi ci des noo topp leen ñu ba dimanche. mais bi je ma yeggali s'il vous plaît cela veut dire euh, imitation bi dafa bari. Comeback show. waaw. arène nationale.